jërë ngeen jëf mbokk yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla lañu jóge te ci yàlla lañuy dellu mbokk yi ñoo ngi jaale Sénégal gépp di jaale monde entier di jaale waa bitim réew sunu ndey ju baax di ñàkk di ajaratu ndey Fatou Kiné Diouf Diatta mbokk yi nag ñu yëgal leen ni suba incha allahu rabbi lañu koy jébbal boromam di set 30 fii ci armeer bu yoof kon nag ñu bëgg képp koo xam ne

ci bisub àllarba ji incha allah bu ñu ko dencee 17h30 ba noppi ba 18 ku bëgg a ji demal nga jaala ji kër Papa Thione fi nga xam ni fara mama jaa nga dëkkoon ak njabootam nga joxe sab jaal nga jaale boo noppee nga yeewee ko lépp ci bisub suba lay yem incha allahu rabbi ñu ñaan nag suñu mbokk journaliste yi suñu mbokk influenceurs yi ne ñëpp yem ci anmeer bu yoof bu kenn dem aéroport loolu mooy ndigal li te loolu mooy bëgg-bëgg bi na ñëpp yem ci anmeer bu yoof ak ci sarax si bu kenn dem aéroport ngir yàlla ñu ngi leen koy ñaan jërë ngeen jëf aca gis nga ba tey rek euh, fi nga xamante ni moo di euh, dëju euh, maman Kiné Diouf Diaga ñu ki gis suñu jigéen suñu sista Ndiolé Tall gis nga moom it kenn la woon ci Kiné kenn la woon ci ki nga xamante ni moo di Wally fu mu ne wala fu mu dem rek ànd na fa ak moom suñu jigéen ju baax jooju di Ndiolé gis nga ba tey rek ñu ngi euh, masaw di jaraat bu baax a baax a baax ñi nga xamante ni ñoo di sénégalais euh, ci tiis ak naqar bi nga xamante ni rek booba léegi ñu ngi koy dund njole kenn dootu ko wax digganteem ak maman Kiné Diouf Diaga kenn du wax aussi digganteem ak ki nga xamante ni moo di Wally Ballago Seck suñu jigéen njole taal ngi koy jaal bu baax a baax a baax ci tiis ak naqar bi nga xamante ni booba léegi ñu ngi koy dund ndeysaan mbir mi ñëpp la bett ñëpp la jàpp ñëpp la bett waaye booba léegi rek ndeysaan moom koy waxee rek kenn la ci kër gi koo xamante ne lu xew ci kër gi muy naqar wala bànneex bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy njëkk teew ci kër gi fii muy njole daal gis nga xam naa ni fu mu nekk nii mënul yëkkati ay kàddu waaye du ñàkk aussi ñu wan sénégalais rek li nga xamante ne moo di euh, teewaayam tey ak geste bi nga xamante ne saa sune day wan ki nga xamante ne moo di Wally Ballago Seck ñoo bokk lépp dañuy ànd ci lépp man ak yow saa su ne muy naqar muy bànneex Amadou Badiane ngeen gis noonu ñu door a ñëw ne fi nga xam te ne mooy kër Wally Ballago Seck ñëw ngi indi jaalam Amadou Badiane moo nekk noonu ñu jaale si ki nga xamante ne mooy xaritam Wally Ballago Seck